ni moom la ñuy woowee ci moom la woote wootee ci li nga xamante ni moo di jub jubal ak jubanti ndax ndax ndax dal na sa xel. lañuy jot a gis moom doxul. doxul. doxul dara doxagul. gisuñ fi lenn lu bees <laughs> yàgg dëgg yàlla bu dee rek <laughs> kuy waxal diggante ak suñu borom ngay wax mm. amul lenn lenn lu fi bees loo xam ne mun nañ ci teg bët mbaa loxo xëy mais nag xëy na euh, aussi comme trois mois la. Mhm. ñu ngi leen di ñaanal ñu ñu gis yoon. Mhm. mais di ñaan Basiru bi nga xam ne quand moom la sénégalais yi fol mu gën a góorgóorlu gën a taxaw taxawaayu président de la république. ah moom nee nañ de. waaw kii gouverner nag moo nekk di ne donc euh, te moom affaire gouvernement affaire état yàlla def ko ci jaglelul. maanaam nitu rii la nitu bedd la nitu defante la nitu coow alors que loolu amu ci fànn boobu amu ci euh, xam-xam mu ngi gën a déplo diplômé wu ci àll wàllu defante wàllu xaste wàllu voilà donc nag Basiru moom mu xoolaat mbir mi te seet chef de d'état yi nga xam ne surtout président Macky Sall mu jël ko conseil mu jël président Macky Sall comme conseil comme lépp lu ko jaaxal mhm. mu woo ko bañ ci am complexe woo ko déglu ko wax ak moom mu jox ko ay tettal ak ay yoon. Mhm. parce que xam naa ne keneen ki pour que mu woo premier ministre yi nga xam ne ñoo fi jaar ne leen lan laa war a def lan laa war a ki sema boobu. <laughs> yaa ngi tooñ de. loo koy ni comme dafa xaw a xeeb assemblée ñu dañ koy delloo ci rëb rek. <laughs> donc xam naa ne rëy na rëy boo xam ne du woo benn ancien premier ministre nekk lan laa war a def alors que te mbir mu ne ku la ci njëkk moo la gën a xam li fa nekk mhm. yow tey man bu ma fi ñëwee boo ne ma toogeel nii wala defal nii mhm. xooleel nii caméraman yi bu yow bu ñu la montelul si micro yow doo liggéey ku nekk dafa am foo xam ne yaa fa mëne mhm. bul ruusa laajte bul rëy ba ne doo laaj kenn wala mën nga lépp walla sañ nga lépp donc état du doxee noonu